asalaamaaleykum mbokk yi ñooy bàyyi xel ñu dellu si waat ak yéen ci xibaaru ah, marax yi ngeen ànd si ak seydu kamara laata ñoo jublu ci faram-fàcce yi dañuy jëkk dem seeti xibaar yi gën a fees njiitu réew mi di président Adama baro nag ñaax na Gambien si pour ñu moytandiku eh, di waral nag noono ci diggante diine ak diine ndaxte loola day yëkkati fitna ci biir réew. benn tey ci beneen xibaar rek moom président Adama Barrow tamit gaar na ay kàddam di wane ne dina toog ci biir mi jiite réew mi ba atum 2021. kuréel yi ñu tuppee ci concerned citizens gaaral nañ seen i kàddu di xamal constitutional review commission bi ne bëgguñ baat bi le di sekula ci biir constitution bu bees bi deputy chief executive officer bu Gambia OIC secretariat mu di honorable Essa Bokar Sy oote na ab ndaje nag ci tali yi nga xamante rek war nañ koy def fii ci biir réew mi ci wàllu summit boobu ban tey ci xibaaru bitim réew yi foofu foofale ci réewu South Sudan président bi ak ki nga xamante ne moo nekkoon député bi am na ab ndaje bi nga xamante ne oote nañ ko niki démb ñu waxtaan waxtaanee nag nan la ñuy def ba jàmm dellu si waat ci réewu South Sudan nit ñi nga xamante ne ñoom ñoo ànd ki nga xamante ne rek moom opposition la ci biir réewu Ivory eh, te nguur gi nag wéral ne bu dewee bu tegee tànkaam ci biir réewu Ivory dinañ ko arrest ñu ngee def ab doxam ñaxtu ci jéego yooyu nguuru Ivory yi bëgg a jël foofale ci réewu Gabon nag dafa am ab kuréel yi nga xamante ne moo songu ay gaal yu nekk ci seeni biir géej gi mu am kenn ki si ñàkk bakkanam ñeneen ñu daal di leen jàpp mbokk yi xibaar yi yeneen xibaar ngeen teewlu ñu jublu ci faram-fàcce yi. yi su ko defee rek ngeen dal ak jàmm ñu jublu ci faram-fàcce yi njiitu réew mi di excellence yi président Adama Barrow gaarale na ay kàddam nag di xam ne ni réew mi war nañoo moytandiku euh, noonoo wala boo xëccoo ci diggante diine ak diine ndaxte jàpp na ne loolu li muy jur mooy extrémisme maanaam app ñaawteef yi nga xamante ne dee faral di xew euh, te li ko dee waral nag mooy wàllub diine te loola nag daf dee faral di indi ab noonoo di indi ab ñaawteef ci ab réew ba ñuy def li nga xamante ne lu jéggi dayoo la moom jiitu réew mi nag ci yile jamono ote na dal ci diggante diine yi nga xamante ne rek ñoom ñoo nekk fii ci biir réewu Gambia xibaar boobu ñu teewli ci Omar Tunkara. Christmas doon loo xam ne at bu ne dañ koy màggal ci réew yi yëpp rawatina fii ci bureau Gambia ñu bari nee nañ sax bu jotee doo xàmmee kuy jullit bi ak kuy christian bi ren nag gannaaw bu mu jotee His Excellency président Adama Barrow comme nu naan faral di def at yu wees yëpp ekkati na kaddu daal di koy gaaral euh, di doole li nga xam ne nag moom mooy christian yi fii ci bureau mi waaye tamit nag di leen ndokkali si wattu bi nga xam ne ñoom itamit nag ñu ngi màggal seen i mu doon nag bés bu mag boo xam ne at bu nekk nag dañ ko dee di màggal na àdduna wër nga képp président bi nag foofa kàddi nga xam ne garal na ko mooy ne lii maanaam Christmas doon na bés boo xam ne dafay fosal gambien si ak christian yi nag nu ñu dëkkee nu ñuy jàmmalantee nag fii ci bureau Gambie ak nu ñu xamee gars yi président bi nag mu ne diine nag dafa bokk ci Gambia ah, si seen i aada ak seen cosaan te loolu nag dafa fosal bu baax a baax li nga xam ne nag moom mooy jàmm bu dox seen diggante mu ne diine nag dafa am yu bari nga xam ne nag moom la muy jàngal ndax nit ki dafay wane sa jikko waaye tamit nag dafay tàbbal li nga xam ne nag moom mooy jikko yi kon nag mu ne kilifa diine lii moo tax ñu am tawaay bu mucc ayib na fii ci bureau Gambia mu ne kilifa diine nag dañu war a takk seen dëgg te xam ne daal moom nguuram bi ràññee na bu baax a baax yokkute nga ne ñu ngi koy def wala boog taxawaay nga xam ne ñu ngi koy def ah, pour nag réew mi mën a dem ci kanam moom nag mu ne dignité maanaam ceru doomu adama bi daal loolu doon loo xam ne nag dafa am fu ñu koy teg bokk na ci nag mooy dañu war a lëkkaloo maanaam dañu war a dialogue ñu toog di waxtaan waaye tamit kenn ku nekk nag ñu nangul wante suñu euh, diine yi ak suñu ngom-ngom ñu lëkkaloo si mu ne Christmas nag dañ ko war a gis ne dañu war a fàttaliku jàng yi nga xam ne nag nu yonent yàlla Eesa nag mu ko doon jàngale te loolu nag ñu topp ci li nga xam ne nag moom moo di yoon yooya ñu bëgg di ko fàttaliku président bi mu ne moom mu ngi diggal li nga xam ne nag moom mooy gàmmeen si ne ñoom nag dañoo am jubluwaay waaye tamit na ci loolu dafa am xalaat yu bëri nga xam ne nag ñu ngi koy def te ñu ngi yaatal pour ñëpp nag mun a bokk ci national development bi nga xam ne nag mu ngi koy oote fii ci bureau Gambia président bi tamit ci loolu mu ne mu ngi ñaax nag li nga xam ne nag moom mooy nit ñi yëpp maanaam képp ku yeyoo suufu Gambia ah, pour nag mu pare nag gën a dooleel boppam wala bokk yokk li nga xam ne moom mooy kàttanam te waajal nag at bi nga xam moo nekk suñu kanam te ne ñëpp nag dañoo a dugal seen loxo su ko defee nag réew mi nag mën am njëriñ waaye tamit nag réew mi am ndam bu rëy eh, ci wàllu liggéey nga xam ko def nag fii ci bureau mi kon nag mu ne Christmas doon na bés boo xam ne dafay wane nag jàmm bu dox ci diggante jullit yi ak christian yi nag fii ci bureau mi ak li nga xam ne nag moom lañ xamee Gambia Omar Tunkara Star TV News jaajëfal Omar Tunkara ci xibaar boobu rek njiitu réew mi dis excellence yi président Adama Barrow nag gaarale na ay kàddoom euh, nag lu jëm ci wàllu euh, li nga xamante rek moom moo nekk tries euh, jot na ndaxte jàpp nañ ne nag moom njiitu réew mi ci kàddoom yi mu gaarale nag wéral na fa ne di xamle ne dina toog njiitu réew mi ba atum 2021 Ah, bu yàggut nag am na kuréel wuñ tuppee ci Trieste jot na mouvement bi sàkku nañ ab pamit ba ñu may leen ko ñu génn ci mbedd yi def doxam ñaxtu eh, di wane ne dañ bëgg pour njiitu réew mi di président Adama Barrow mu tekki am na mbal tànkam ci weeru janvier bi at bu bees mu di atum 2020 ñu toog nag di déglu njiitu réew waaye jàpp nañ ne njiitu njiitu réew mi di président Adama Barrow eh, tontu na nag di wane ne moom nag mu ngi fii ba atum 2021 eh, ndaxte day jiite réew bi ñu jublu ci presidential election yi may Maimouna Diouf la ñuy àndal ci xibaar boobu kii di His Excellency the President Adama Barrow gannaaw bi mu doon waxtaan ak benn local television biñ ko fa invite on mu wax ne li tax moom three years bi daal bu jotee moom du génn office na dafay toog ba five years jot président Barrow xamal nañu ne protest daal dafa bokk ci démocratie te moom ak nguuram bi daal dañ bugg li nga xam ne nekk moom mooy dëgëral démocratie bi. mu ne ndax li nga xam ne moom la Gambia soxla fi mu nekk nii mooy wécceeku te wecceeku boobu nag dafa war a am. moom président Adama Barrow xamal nañu ne nekk président nag amul njëriñ waaye li ëpp solo mooy Gambia ci boppam ndax loolu moo ko ñor te looloo ko soxal mu ne ndax fu mu nekk ni nag Gambia mu ngi ci tabax te dañ ko war a tabax ba mu àgg ci kaw fu mu nekk ni daal liggéey bi daal ñëpp a ko si war a jàppale ndax ci liggéey la nekk moom président Barrow ay kàddoom la. président Barrow xamal nañu ne dafa war a introduce li nga xam ne nag mooy new constitution su ko defee nag bépp Gambien dinañ xam lu ñu war a doon fi lay at ay at ci kanam mu ne loolu moo tax nag Gambien yëpp dañ ko war a jàppale ci liggéey bii ndax mu mun koo def ndax benn loxo daal du mun a yóbbu réew foog ñu jàppale ko ndax daf ko soxla. moom président Barrow wax na tamit ne moom ak nguuram bi daal dañ bugg a su économique demee génnee dëkk bi suñu sordaar yi mun a yore dëkk bi te dara du leen ci fekk ndax moom nguuram bi daal ci loolu lañ nekk te loolu lañ bugg moom président Barrow xamal ne waa réew mi ne TRRC bi nga xam ne ci loolu lañ nekk nii mu ne nag fu mu nekk nii loolu lañ war a fexe mu jeex ndax ñëpp xam nañ ne mënuloo commencé dara tey rek nga bugg a mu jeex tey loolu mënut a am. moo tax nag mu ngi ñaax ñëpp ñu jël li nga xam ne nag mooy position ñu daal ko tegee boor ndax loolu amul njëriñ mu ne ndax soo nekkee président lu bari def la cay xaar te lu bari nga war a def ndax fu mu toll nii ñëpp a ngi soxla nga def li nga xam ne loolu moo la war. mu ne nag buñ ko seet moom ci boppam moom Adama Barrow waaye nañ seet li nga xam ne mooy réew bi ndax Gambie bi daal moo gën a rëy moom mi ci boppam moom aadama Barrow loolu ay kàddoom la. moom président Barrow ba léegi ci ay kàddoom wax na ne bu fekkee ne fukki nit ñooy wax ne three years jot na ñaar fukki nit ñu ngay wax ne dañ ànd ak five years bi mu ne teyit nag ñetti fukki nit ñu ngay wax ne beneen ten years la war a def fii mu ne nag fu mu nekk ni loolu yëpp nit yaa ngi koo laam-laamee te loolu yëpp amut njëriñ mu ne fu mu nekk ne li am njëriñ mooy ñu respect li nga xam ne mooy luwaa bi ndax luwaa bi daal moo ko fi teg moo ko may ne juróomi at yi bu jeexee rek mu mun a def élection bu fekkee ne gañe na mu daal di continuer bu fekkee ne gañenul nag mu wàcc abal keneen waaye wàllum tries bi daal moom Adama Barrow àndu ci ndax luwaa bi mayut ko ko mu ne ndax ñëpp xam nañ ne Yaya Jammeh karta ko fi génnee kon nag moom tamit foog karta su fekkee dafa war a génne karta ko ko fii génnee mu na na ñëpp def li nga xam ne loolu moo war su ko defee nag réew bi mun a dem ci kanam ba pare liggéey bi dina yomba ak moom lool may a Diouf Star TV News. jaajëfal a Diouf ci xibaar boobu benn tey rek eh, ñi ñu tuppee ci concerned citizen mu di ab kuréel. li nga xamante ne rek li leen yëkkati daal mooy lépp luy indi jàmm ak yokkute ci eh, réew mi ak ñi dëkkee ci biir réew mi ñoom nag ñoo wéral seen kàddu ci kanamu constitutional review commission bi nga xamante ne sas nañ leen ah, pour ñu ñëw ak constitution bu bees mu di baatu réew bu bees xamal nañ leen ne nag bëgguñ baat bi la di sécularisme ah, ñu dugal ko ci biir constitution bu bees boobu. concerned citizen nag wax nañ ne loolu mooy seen taxawaay seen kàddu yi nag ñu ngi ko àggee CRC bi ci jamono ji nga xamante ne rek am na ab waxtaan yu doxoon seen i diggante ñi nga xamante ne rek ñoom ñoo jiite ay kuréel yu xeetoog wàllu diine bi fii ci biir réew mi waaye tamit ñi nga xamante ne ay kilifa diine lañ ñu ngi toogoon nag ci ab table di waxtaan ak constitutional review commission bi eh, ci wàllu lii di baatu réew bu bees bi la ñu war a indil nit ñi conférence bi nag ñu defee ko foofule ca diwaanu Bijilo niki dimanche bi ñu weesu Omar lañ ciy teewlu constitutional review commission bi depuis buñ tàmbalee seen liggéey ba tey jile daanaka coow rek moo leen si topp rawatina nag bañ demee ba tudd affaire yi sécularisme nag ci baatu réewu Gambia. sécularisme nag boo ko déggee moom mooy wàllu diine yëpp daal di rem em nag fii ci biir réew mi loolu nag am na ñuy xalaat nag dañ ko war a dugal nag ci baatu réew Gambie waaye nag kilifa diine yi bëri nag loolu dañ koo dàqalu te coow loolu nag jamono ji nag moo lëmbee réew mi ba tax nag am na toogaay boo xam ne jotaay boo xam ne am na yeneen ndaw nag ñoo ko ote fii ci biir réew mi daal di ci werante wax nag ñoom itamit seen xalaat si li jëm ci wàllum nag baat boobu nag di sécularisme Concerned Gambians boobu kuréel la boo xam ne wutut xaalis waaye nag dañoo bind nag fii ci biir réew mi te li leen tax a jóg nag moom mooy pour jàmmalante ak askanu réew mi waaye tamit nag dooleel li nga xam ne moom moo aju ci wàllu aada ak cosaanu réew mi ci biir nag association bi wane nañ seen taxawaay ba mu leer wane ne daal sécularisme doon na loo xam ne xajut nag ci réew mi wala boog amul place nag ci constitution Gambia bi bi ñuy wax nag si seen ndaje bi wala boo seeni i conférence bi président bu mbootaay boobu nag di docteur Omar Dia moom nag daaxalu na xalaat yi nga xam ne nag ñu ngi koy wax ne sécularisme dafay andi xaajaloo si diggante jullit yi ak christian yi ci réew Gambia moom nag mu loolu nag amul waaye nag moom ci gis-gisam mooy ne lii nag nekkul diggante ñi nga xam ne nag ñoom ñooy ñu bokk si christian family wala boo si jullit yi waaye nag diggante ñi gëm la ak ñi gëmut maanaam daal ñoo xam ne gëm nañ diine ak ñoo xam ne ñooñu amuñ dara liñ gëm mu ne nag sécularisme nag amul place ci l'islam waaye tamit amul place nag ah, ci christianité maanaam ci ah, groupement yi Dota Dia nag benn tey mu daal di continuer di wane joxe exemple ne Pope Francis ak Pope Benedict ñi nga xam ne nag ñooñu monsieur dañoo jiite groupement yi yëpp àdduna wërngal képp wan nañ ci seen xalaat ñoom i tamit ñoom ñu ne ànduñ ak sécularisme ah, parce que ñu ne sécularisme doon na li nga xam ne nag amul place nag ci li nga xam ne nag moom mooy ñoom i tamit seen diine kon nag loolu xaddu tamit ci li nga xam ne nag moom mooy constitution li di Gambia Docteur Dia benn tey muy euh, Rijek euh, di wane ne ñi nga xam ne nag ñu ngi oote tamit ne ñu daaneel jumaa yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci béréb yi nga xam ne jàpp na ne nguur gi nag ñoo ko moom moom jàpp na ne ñooñu nag ñitu dof leen parce que mu ne jumaa yu ëpp de yooyu nekkul nguuraa ko samp waaye nit ñi bopp ñoom ñoo ko daal di sampal seen bopp Docteur Dia nag muy daal di ñaax jullit yi ak christian yi pour nag ñu tegee boo nag seen i bi ñu koo nag doon benn su ko defee nag réew mi nag mën a dem si kanam ginnaaw bu mu daal ne Cheikh Ahmad Jiite moom it jàngalekat la si University of the Gambia moom it demee nag dàkkalu na wàllum sécularisme nag ñu koy dugal si constitution du Gambia mu ne nag sécularisme na loo xam ne dafay yàq nit ñi soo na li ni mooy wàllum lii di sécularisme booba ndax mu ne nag sécularisme nag dañ ko war a bàyyi parce que kenn ku nekk dafa am nag ak ak yelleef bi nga xam ne nag am nga ko kon nag loolu dañ ko war a sóoraale ñoom dañ sóoraale ñoom seen ak ak seen yelleef comme ni ñuy defee ñeneen tamit nag seen àq ak loolu amul place naka ci réew moom it tamit gannaaw mu daanalee former secrétaire général bi naka moom it kàddu yi li mel foofa ndax mu ne nag sécularisme amul place waaye tamit amul place nag ci moom nag muy continuer di wane daal ne ñoom nag reject nañ ko te diine yëpp ànduñ ak moom ba na ci loolu nit ñi nag nañ di fàttaliku te fàttali nga xam ne nag moom mooy affaire conférence bi nag ay kilifa yu mag ñoom ñoo fa teewu ñoo xam ne ay kilifa diine lañ ay borom xam-xam yu mag nañ ñoo fa teewu góor ak jigéen nag ñoo xam ne dañoo dafa euh, lëmbe réew mi sécularisme nag Omar Tunkara Star TV News jaajëfal Omar Tunkara ci xibaar boobu su ko defee rek dañuy dem seeti deputy chief executive officer bu Gambia OIC secretariat mu di honorable Essa Bokar ni ki altine nag ñaar fukki fan ak ñett yi ci weeru décembre am na ab ndaje bi nga xamante ne rek jiite na ko ñu tuppee ko ci eh, tenders for consultancy maanaam ab ndaje yi nga xamante ne rek eh, liñ siy jublu mooy nan na ñuy def rek ba gis ne eh, yoon yu bees yi nga xamante ne rek buñ ko xaymee dina war a mën a toll ci ñaar fukki yoon dinañ ko defar nag fii ci biir réew mi jubale nag ci OIC summit 2022 bi nga xamante ne rek war nañ koy am fii ci biir réew mi ndaje booba nag moom kii di Essa Bokar Sow moo ko jiite woon niki altine bu ñu weesu ñu ànd si ak Maimouna Diouf. kii di député chief executive officer bu Gambie OIC secrétariat ñu gën ko xamee ci honorable Essa Bokar si moom nag niki lundi 23 décembre 2019 wax na nag ubbenteli OIC summit bi nga xam ne nag mu ngi war a am 2022. OIC summit bi nag lépp lu ko waral muy ay tali yu bees yi nga xam ne nag yooyu lañu war a tabax tali yu bees yi nag dem ba ci ñaari fukk ak tali exercise bi nag ñu ko def muy senior manager bu National Road Authority ak euh, ñeneen i stakeholders yi nga xam ne nag ci wàllum construction maanaam ci wàllum tabax lañ jee sukkandiku amoon nag ay representatives yi nga xam ne nag dañ jógee fii ak euh, ci international films yi ñi nga xam ne nag seen liggéey dafa xarañ ci wàllum road construction maanaam euh, defarum tali député CEO bi Sèye moom nag wax na ne li nga xam ne nag moo OIC bii daal nekk na ay njëriñ yu bëri fii ci réew mi ndax nag OIC summit bii daal nu mu staatee ni su naree continuer loolu teraanga rek dina ñëw fii ci biir réew mi ndax loolu moo waral li nga xam ne nag mooy OIC summit bi le mu ne ndax yeneen dikka yi nga xam ne ñu ngi foofu noonu ca bitim réew te amaloon OIC summit bi ñu ne ñëpp gis nañ projet njëriñ bu mu àndi ci seen biir dëkk moo taxit nag Gambie daal dañu war a fexe ba projet bi daal ñu doore ko si bismillah jeexale ko ci alhamdulilah su ko defee nag ay njëriñ kese la muy àndi fii ci biir réew mi ndax summit bi daal ay njëriñ kese la. mu ne OIC projet bi daal nekkut am mbégteel rek waaye nag sant yàlla bu mag la mu ñaar fukk tali lañ bugg a defar foofu noonu ci Greater Banjul area su ko defee nag dem ak dikk bi yomba lool ak li nga xam ne nag mooy uh, wàllum communication bi su ko defee nag loolu noonu gën a mun a dem ci kanam ndax suñ waxee communication rek mooy uh, développement te développement daal mooy ay njëriñ yi nga xam ne dafa yokk ci réew ki nga xam ne nekk mooy managing director bu National Road Authority ñu gën ko ci xamee ci Mamadou Senghor moom itamit gaaral na fa ay kàddoom wax na nag li nga xam ne nekk mooy OIC bi nag ay njëriñ kese la te nag li ko ci gën a neex mooy gannaaw bi nga xamee ne nekk dañ jël international construction films yi daal di leen boole ak seen local film yi ndax su ko defee nag liggéey bi mun a gën di dem ci kanam ndax xarañte ceeb rek lañ ci soxla moo tax ñu daal di leen a boole mu ne ndax dina gën a dimbale ñi nga xam ne nag mooy Gambian companies yi su ko defee ñu gën a mun a dem ci kanam tey tamit seen liggéey dafa xarañ loolu kon nag suñ jëlee seen xarañte boobu noonu daal di ko jox ñi nga xam ne nag ñooy local films si ak compagnie yi nekk fii ci réew mi dina leen gën a njëriñal Maimouna Diouf Star TV News. mbokk yi su ko defee dañuy jaajëfal a Diouf rek ñu jublu ci xibaari bitim réew yi. foofa ca réewu South Sudan nag eh, président bi mu di eh, Salva Kiir ak ki nga xamante ne moom moo nekk opposition leader bi lee eh, di Riek Machar ñoom nag am na waxtaan wi nga xamante ne dox na seen diggante ndiki altine bi ñu weesu ah, foofee nag ñoom ñaari njiit yi yëpp wane nañ ne daal ah, waxtaan yi dinañ continuer ah, pour rek seet nan la ñuy def ba delloosiwaat jàmm ci biir réewu South Sudan su fekkee nag génn nañ ci feet bi nga xamante rek moom lañ nekk ne mu di feeti gurmet yi ba loolu waral nag jàpp nañ ne ñoom ñaari njiit yooyu ci biir réewu South Sudan Eh, ci àdduna wërngal képp nag eh, ñoom mayuñ leen jàmm ndaxte àdduna si ñu leen di bunu pour ñu fexe ba gis ne dinañ am too eh, daal di sos nguurub njàppandal wala boog nguur gi nga xamante ne rek coalition government la muy nekk ci biir réew South Sudan su ko defee ñu delloo siwaat jàmm bàyyi fitna bi nga xamante ne moom moo nekk ci biir réew moomu président Salva Kiir nag jàpp nañ ne ci ay kàddam moom ak kii di Riek Machar wan nañ ne daal ñu ngi déggu ci waxtaan yooyu te nag bu fekkee ne génn nañ ci feeti gourmet yi Eh, dinañ dugg ci waxtaan yi continuer waxtaan yi nga xamante ne ñu ñu koy am ñoom ñaari njiit yooyu eh, pour fexe ba gis ne daal dinañ delloosiwaat jàmm ci biir réewu South Sudan. foofale ci réewu Ivory Coast nag ki nga xamante ne rek moom moo nekk Guillaume Soro Guillaume Soro nag. Ah, mu ngi doon liggéey ci nguuru président Alassane Ouattara waaye nag mujjanteel bi dañoo duuloo ñoom ñaar ñi ba loolu waral nag Mr Soro bàyyi réewu eh, Ivory Coast dem laaxu foofa ca bitim réew eh, ci yeneen jamono nag waroon naa dellu si ci biir réewu Ivory Coast waaye nag nguuru Ivory Coast bi wax nañ ne bu tegee tànkaam ci réewu Ivory Coast nag dinañ ko arrest loolu waral nag moom kii di Mr Soro. roppalaan bi mu duggoon nag wàccu ci biir wu Ivory Coast dafa mujjee wàcc ci biir réewu Ghana euh, ñu jàpp ne nag looloo waral ñi farak moom ci biir réewu Ivory Coast génn nañ ci mbedd yi nag di def doxam ñaxtu di ñaawlu lii nga xamante ne rek nguur gi bugg nañ koy def ci kii di ak Goulambi Soro ndaxte kenn ci ñoom muy woo ci Bernard Coffey Euh, wane na ay kàddoom nag di wane ni daal euh, ki nga xamante ne moo nekk Mister Soro daal bépp ñaawte bu def ba waral ñu arrest ko ci bureau Ivory Coast kon nag dañ war a arrest ñi nekk di liggéey ci nguuru président Alassane Ouattara bi yëpp ak président Alassane Ouattara ci boppam ndaxte bépp ñaawte bu mu def daal nañ jàppane président Alassane Ouattara ak nguuram def nañ ko ci bureau Ivory Coast ndaxte ñoom ñoo doon liggéey Grammy Soro nag na président Alassane Ouattara ci atum ci présidential élection si nga xamante ne def nañ ko ba ñu duma former président bi di Laurent Gbagbo Laurent Gbagbo nag ci yooyu jamono dafa bañ ne eh, dumuñ ko ci élection yooyu loolu waral nag adduna si mu di international community bi dañ am pour dugal seen loxo ci mbir moomu ñu daal di génnee Laurent Gbagbo ñu daal di eh, samp nag nguuru président Alassane Ouattara jamono ji nag Alassane Ouattara dafa duuna Gulaami Soro ba looloo waral nag nguuram gi nee nañ bu tegee ay tànkaam ci biir réewu Ivory Coast dinañ ko arrest ay ñu ànd ak moom nag ci réew moomu ñaaw nañ loolu wax nañ ne loolu nag tiitaange la ci nguur gi ndaxte ragal nañ Goulamé Soro bu dellusee ci réew mi dina am ndam ci élection yi nga xamante ne ñu ngi si war a jublu ci réewu Ivory saa foofu rek ci réewu Gabon nag Gabon dafa am ay kuréel yi nga xamante ne ñoo dugg ci ay gaal eh, dem ci géej gi nga xamante ne moom moo nekk ci seen capital bi ñu songu ay bato ba looloo waral nag am na kenn ki si ñàkk bakkanam kooku nag jàpp nañ ne bokk na ci ñu doon dawal bato yooyu noonu di juddub réewu ah, Gabon am na ñeneen ñi nga xamante tamit ah, téye nañ leen daal di leen yóbbu ñoom nag ñu ngi bàyyeekoo ah, ci biir li di réewu China ñu jàpp nag ñi nga xamante ne rek ñoom ñoo nekk nguuru gabon gi ñoom tamit ñu ngi def seen kéemtalaay kattan pour gis ne nag ñu def ñaawteef bi li dinañ leen teg loxo ñu ngi sey lëkkaloo tamit ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk Interpol ak si pour fexe ba gis ne daal euh, fépp fu ñaawteef ñu def ñaawteef bi la nekk nag dinañ leen euh, gis su ko defee ñu daal di leen teg loxo euh, comme nuñ ko wéralee ci lu bàyyeekoo ci seen nguur gi ñoom ñi nga xamante ne ñoo nekk réewu Gabon jamono ji nag kenn ñàkk na si ab bakkanam mu am ñeneen ci nga xamante ne rek téye nañ leen daal leen yóbbu nguur gi nag ñu ngi dëggal nu nu mel niki dimanche bi ñu weesu weeru décembre ñaar fukki fan ak ñaari ci kàddu yu bàyyeekoo ci kuy wax ci làmmiñu nguur gi eh, ci wu Gabon mbokk yi mu jëm teelu xibaar yi fii ci biir kër gi Star TV am mbégte kontante eh, ci seetaan bu rafet bi di leen ñaax pour ngeen continuer di safoo Star TV eh, jaajëfal kii di Lamine Meng ci caméra bi jërë ngeen jëf wasalaam